fu mbooloo yi daje sécurité mbooloo ma yéen la war fu mbooloo daje seenum pàcc yéen la war moo tax nag su bi si ñëwee ñu ñëw fii di leen ko fàttali naka jëkk daa ngeen ci taxaw naka jëkk daa ngeen ci góorgóorlu def li ngeen ci man lépp muy Sonatel muy Senelec muy muy muy ñëpp rek ñëpp ci taxaw nañ ci war a taxaw borom bis bi nag jar na ko ndax ku ko lebal dafa am pay dafa futtiku li di liggéey sëñ Tuubaa ba sëñ Tuubaa tëb ko kàttan kàttan googee nag ku ko bëgg da ngay barkale ci bisam bi ci jëf ci wax ak ci lu koy jagal ndax mbiram jag na démb jëkkës tey li gën a rafet njort itam ci nguur gu bees gi fi nekk mooy Jomaay ak Sonko day mel ni dañuy doog am indépendance ndax dañoo ne woon ci noteelu tubaab rek mu yilif nu moom ñu ñii nag sëñ blaat waar woowu daf leen ndax bu njëkk ak mu da nga koy nëbb ndax complexe waaye bi mu njëkkee moo di lépp ñuy soli bàyyi laat di soli xaftaan nekk ci biiru yi loolu ci moom la jëkkee boo ne seen jullit piir ñii nekk amuñu complexe tubaab mel na ni ndax séréer moom daa ñàkk caaxaan kon loolu niru na ko si Abdou Lahad kon nag bu fekkee lii mooy seen njël benn yaakaar naa biñ toogee léegi CRD bi njëkk yaakaar naa bii rek la te ci koor lay tamit kon nag kuy wët Sëñ Tuubaa boo dalee Sëñ Abdou Lahad na nga rafet njort na sant yàlla te xam ne daj nga lu rëy góor nag ñi ngi leen di ñaanal yéen ñëpp yéen sëriñ yi nekk yëpp yàlla yokk leen ba ngeen yëg ndax gis nañ seen taxawaay ci bis bi ak ni ni mu leen yittale sëñ Abdou Lahad Ka dafa am taxawaay yoo xam ni dooma koy taxawee waaye këru xaqiiqa rek taalibe yi ñoo nekk doom yi moo tax sëñ bi jiital lépp teg ko ci sa loxo nga nekk doom di taalibe te di ko rafetal soo ko rafetul dem dañ ko jël ci sa loxo waaye da ko rafetal matal ko kon nag rafetal boobu ñeel ci sant bu baax a baax di ci laa doon jokkoo gouverneur ma jàpp tak bi te nga ma ko yëgalee noonu bakkaat yi démb kon suñ teewaat gi fi day aad rek waaye doon na sëkk yéen ñi rek ak njaboot sëñ Abdou ak taalibe yi ngeen teew ci dëggal ñëpp i taalibe lañ waaye nag yéen ñi yéenay taalibe yi yéen la sëñ Abdou jur yéenay njabootam kon ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di nuyu ak suñ sët yi ak suñu yi fi teew yëpp asalaamaaleykum wa rahmatullah dana weesu lépp saa ñu fi ma sañ wax leen suñuy bëgg ak suñu itte defe ngeen ko ni nu ko bëggee ba man mi nga xam ni yaakaar naa yàgg na maa jiite màggal bi mësuma ci bis benn raq-raq te yàlla mi ma tiim xam na ko te moo gisoon dama koy wax kon ñu ngi leen di gën a fedd li di gën a rafet jot ci ni li ñuy dëgmal ni li weesu rek lay mel di sant nag bu baax ndax yàlla dafa dogal ay kóllëre dox suñu diggante yi naa xam ngeen ko di beral beneen nuyoo itam su préfet bii nga xam ni sama wëllëre moom dafa yàgg yàlla jëlee ko fa mu nekkoon indi ko fii ci Touba lu ci baree bari ñu ci diisoo di ci waxtaan ba tax na ñun ñu fi ñëw ñëpp ci turu sëñ Sidi lañ fi ñëwee wootu ko fi te xamoon nañ ni tam ñu ko sëriñ am sutu waxee Abdou Lahad Kam yi rek bu ñëwoon ak sëriñ Lahad Jaxate ñoom ak njaboot gi rek danañ ñu mën a wuutu ci lépp ci taxawaay waaye jëmmal bis bi rek moo fi suñu jataay waaye ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp te bëggit di ñaan bu ñuy def réunion évariation bi li ñu tënk fii lépp su boobaa luñ ca xam ni mën naa am rek ñu leeral ko foofa ba mu leer mu ndax saytu bi ñuy saytuwaat nu màggal gi loolu mooy tax ñu ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullah